ñu naataango Samba Ardoba Samba ñu lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax euh, Moustapha Ndoye nga leen xaw Belgique. ya Belgique de ab loi daal lañ fa génnee jibale ko ci ñi nga xamante ni dañuy cokkaas. cokkaas maanaam mooy. Eh, cokkaas jigéen bu la rombulet rafet. jekk taaru defar ba mu baax nga ni ko soxna si ah lii nga def de neex na ma ab daan daal mu ne suñ ko daal sa kaw. teg ci ay daana ah? waaw. Mhm. kon yéenekaay xëy. alors li ci yéenekaay yi doo rek rek ak euh, journal bi ñu wax rek enquête moom ci xëtam bu njëkk nag mbirum guerre ak alal bu dëppawul ak yoon daal di fësal nag yéenekaay bi ne. nguur gi moo si nam jël ay matuwaay gouvernement bi nag ngir xeex lu ni mel mu nam dooleel ARMP Cour des comptes IGE ak organes yi ni mel premier ministre nag Abdoul mbay moo ko xamle ñu bëgg fay nag jëlee wàllu guerre bi ak sàcc alalu nguur gi. yéeni kay la tribune moom nee nag xaalis kon bi ñu làq ca bitim réew kon dinañ ko rapatrier dellu si ko nag kon fii ci réewum Sénégal mu di nag gis-gisu Abdoul Mbaye jëwriñ ju njëkk ji nag moo xamle ne nag ñu ngi lëkkaloo ak ay partenaire au développement lépp rek ngi delloo si alalu réew mi ngir nag ñu mën see financé ay programme yu nguur gi na ma daal di amal fii ci biir euh, réew mi ginnaaw la tribune beneen yéen i de Hann wala sax taw yéen i yi le soleil moom nag xëy fësal rek euh, moom financement bu am nag rek ci waa banque mondiale mu ne nag lu jege ñaar fukki milliards ak juróom-ñett nag suñu ay koppar dañu daal di génne nag ngir mun a xeex wàllu mbënn mi ci banlieue bu ndakaaru nag benn réseau de drainage bu vingt kilomètres la ñu fay taxawal ngir nag muy yóbbu ndoxu taw bi. lépp nag nee ñu benn million ci ay doomu aadama la boobu le projet kon daal di soxal 660 hectares la ñu war a nag xaajale diggante Dalifort ak Mbëbës ginnaaw le soleil le pays au quotidien moom fësal ci xëtam bu njëkk nag ay kaddu yu freestyle moom nag rappeur bi nekk it ab jantakoon moo gisee nag ne Cheikh Béthio Thioune kon dafa nekk rek en mission ci biir euh, prison bi nag moom Cheikh Ibra Paye mu amal nag waxtaan bu yaatu yéenekaay bi mu si àdduna ci tegum loxo njiital ku yi waaye yétte ci wàllu musique bi muy amal mu yokku ne nag mu ngi waajal ab tournée ci prison yi nag balaa yokku ne yu Ndour nekkal lu fi dong musiciens yi yéenekaay l'observateur moom xëy àdduwaat ci baatu ko Kékouta euh, Sidibé ca diwaanu Kédougou la daal di rek xewee woon njabootam nag moo déposé ab plainte ca procureur général Lassana Diabé Sibi ñu yebal fii nag maître Assane Dioma Ndiaye euh, bi nag bi boole kon ci boobu la plainte ab certificat de genre de mort famille bi léegi nag bëgg dem ba jeex tàkk nag ngir rek yoon daal di def liggéeyam ba ñu teg daan gendarme yi fitnaa lool Kékouta Sidibé mu kon ñàkk bakkanam ca diwaanu Kédougou fës kon ci yéenekaay bi di l'observateur Moustapha Ndoye ci yéenekaay yi li ñu xëyee ba léegi nag ci bis bi ñu dem nag ci wàllub politique. wàllub politique ak yéenekaay bu ñuy wax Sud Quotidien moom nag mu ne Benno Bokk Yaakaar moo nag jëm ci tas pàncankalang li ko indi nag boo doon na ne ñu élection yi rek yi jëm ci wàllu nag këru Sénat bi euh, yéenekaay bi nag ci xatam bu njëkk ma fësal nataalu Macky Sall Moustapha Niass ak kii di Ousmane Tanor ñu bari nag ñoo ñàkk ànd ci liste bi Macky Sall di beral ñenn sax. ndax ne ñu samayul ñamal lu ñuy wax kon ab liste parallèle ginnaaw Sud Quotidien yéen i kaay le quotidien le quotidien ne nag après aménagement su muyul ñoomal ko rek kon ci gouvernement bu Macky Sall Mbaye Ndiaye yor nag mbirum rek kaaraange bi réew mi di intérieur nag nañu su muyul ñu def ko njiital këru Sénat Macky Sall nag ni mu tabee woon Moustapha Niass assemblée nationale moo tab it kii di mbay Ndiaye ci place sénateur yi nag mu nar a wuutu Pape Diop njiital kër googu nag mooy ñaareelu personnalité réew mi moom moo war a doxal réew mi bu fekkee rek kon nguur bi dafa am lu ñuy wax kon ab vacances la daal di jël Moustapha. ci sport lu yéene kaay xëy ci bis bi. football ak yéenikaay bi ñuy wax stade moom nag mu ne Côte d'Ivoire Sénégal ci xëtam bu njëkk nag lañu ñu kon daal di fësal yéenikaay bi ne Joseph Koto nag moo daal di rek boole expérience ak lii di jeunesse entraîneur bi nag moo woo ñaar fukki gaynde ak ñett ci boobulee match war am ci juróom-ñetti fan septembre bi ñu dëkkmal fukki lion ak ñaar nag ñoo bokkoon ci kan bi daal di weesu ginnaaw football ak stade sunu lamb at moom nag ci mbirum rek arène bu Sénégal moom nag ci bu njëkk ñoo wane seen mer ñu ñaawlu fitna bi ci làmb ji balaa attaqué waa CNG bi ñu sàkku nag ci ñoom ñu tekki seen nombal tànk Thierno Ka ne affaire bu ni mel du ci yéey yàbbi ci mbëri nag ñoom ñi yónnikaay bi rek di ci joxe ñoom seen ab euh, xalaat ci boobu dogalu promoteur yi ginnaaw sunu làmb yónnikaay Leewtoo ne nag moom ginnaaw kon dogal bu promoteur yi daal jël rek yemale cachet yi nag ba ci soixante-quinze millions de francs CFA année blanche mooy gàllu ci mbëri bëri kon ku ci mel ni Balla Gaye 2 Lion bu Guédiawaye Eumeu seen wala sax ki ñu wax Tapha Tine fës yéeni kay bi ñu wax Leewtoo Moustapha Ndoye eh, Samba Doba ñu lay gërëm di la sant xam naa ni nag la am Belgique moom intéressé na la lool yow ak Thiandoum ak Bakary ma wax leen di amende bi daal deux cent cinquante euros la. mu di ñaari suñu koppar. deux cent cinquante euros boo ko xayma cent ah. cent euros de mooy soixante cinq mille. waaw nga def ko fois trois. dina xaw a baax ci ñuy ñi. ah deux cent cinquante de kuñ ko daan ci rafet nga jekk nga wala topp si ginnaaw ni ki di wax di dem tamit euh, dina doy waar. kon mbokk yi téléspectateurs yi fii la yem ak yéen.